dama ñëwoon tey Touba ànd ak euh, Serigne Mansour Sy Djamil ak délégation bu mag seetsi suñu waajur pour mu ñaanal ñu ci lii ñu jëm ñu sàkku ñaan ci moom ci campagne. bu dal sàkku ñaan ci moom ci élection yu dal bi ñu waxtaanee ma ne ko sëriñ bi ñun suñu programme muy pur sant am na ci volet bu am solo mooy tabax doomu aadama te gis naa ne am nga projet boo xam ne waxuma la Touba waxuma la Sénégal wante dafa laawale àddina bi yépp mooy université Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xam ne posé nañ première pierre bi ma ne ko nag li ñuy mébét muy yore nguur gi yore réew mi ci fan yu néew loolu bu ko yàlla dogalee suñu bët dina tegu ci projet université boobu xam nañ ne aussi réew mbay moo ko yore ñu xam kër gi ni mu taxawee ci mbéy loolu it ñu wax ne dafa nekk ci suñu biir programme da nga xam ne mbay mi ak napp gi ak càmm gi nga xam ne moo nekk ñetti kanu yi nga xam ne moo yenu suñu programme incha allah dinañ ci def suñu kenn kattan defe naa daal wax ji loolu la woon ñun nag dañu teel a yëglu defe naa bi ñu yëgloo léegi dem na presque ci juróomi weer. parce que suñu président parti Moussaïdi Mouhamadul Moustapha si dafa yónnee woon ca gàmmu ga ne ñun fas yéene nañu dem élection présidentielle que suñu kilifa gi nañu defal ñaan loolu nag boo ko seetloo xam ngeen ne yombalal yombalal nañu lu bëri parce que gàllankoor yi nga xam ne tegoon nañ ko ci élection yëpp jàll nañ ci gàllankoor yooyu. bi fii mu nekk ñu ngi ci juróomi fan pour élection yi jot loolu daal laa amoon ci lu ma leen di wax. Sénégal boo koy wax noo ko wax te waxu religion parce que waa Sénégal yëpp damu daj ñëpp a gëm suñu borom wa ilaa nga nekk catholique wala nga nekk jullit man de ci sama gis-gis bu gàtt ñaar yooyu laa fi gis donc boo amee programme te dugalee ci diine. ah xaw ma lan nga ciy dugal xam nga dëkk bu tedd bu mel ni Touba di def màggel goo xam ne ay million nit ñoo fi ñëw fu mel ni Tivaouane di def gàmm goo xam ne ay millions nit ñoo fay ñëw fu mel ni Popenguine di def liggéey boo xam ne ay millions nit ñoo fay ñëw ak feneen ak feneen ak feneen ku lim juum boo demee Kaolack ñu nga fa boo demee Ndiassane boo demee Thiénaba boo demee Dakar ci Laayeen yi dama ne ku juum du noonu. ñooñu nag da nga war a am benn politique particulière parce que xam nga ne ay doomu aadama ñoo fay dem nga fexe ñu bañ a ñàkk ndox nga fexe ñu bañ a ñàkk courant nga fexe ñu bañ a ñàkk sécurité loolu daal defe naa mooy euh, tontu question bi nga joxe. du noonu pur sang defe naa wax naa ko démb ci Louga gis nga xaalisu Sénégal doomu Sénégal yëpp ko moom doo jël nag xaalis bi. def ko ci école nasaraan rek utal leen ay salle de classe utal leen ay tablement ay table noire di fay ñay jàngale da nga koy def aussi ci daara yi école nasaraan yi la ñu am daare yi am ko di table noire di craie di fay fay jàngale. léegi nag parce que ñëppay fay impôt léegi nag da ngay normaliser lépp da ngay fexe ba normalisation bi am ci école tubaab yi normalisation boobu am ci daara yi te loolu nag fu nekk mun naa koo waxee mais Touba gi du ma ko waxee parce que ñoom dañu xam àqu doomu aadama ku nekk ci daara du dangay ngay war a sol ñàkk sol dàll wala sol yére yu tilim déedéet fii moom xam naa ni ku nekk ci daara li warloo ci yow yëpp la ñuy def donc ñun duñu am benn difficulté ci normalisation boobu léegi nag boo ñëwee ci université. mais man sama mébét yëpp parce que universitaire laa benn tabax naa université maa ngi fay jàngale sëriñ bu posé première pierre université Cheikh Amadou Bamba nga xam ne discipline yëpp lañ fay jàngale te bi ci raw nag mooy science les sciences de l'ingénieur la recherche l'agronomie université bii ñuy tabax dina ko jàngale xale yi dinañ fi jàng arab jàng fi théologie mais jàng fi anglais loolu yëpp dinañ ko jàng loolu nag mooy suñu projet ñun. bu ko defee aw ma droit jël projet bi da wax dëgg wante nguur gi kenn kattanam dina ko dugal ci projet boobu. parce que dafa nekk projet boo xam ne dafa dépassé Sénégal dafa nekk projet boo xam ne dafa dem ci àddina jëpp donc loolu daal laa bëggoon a wax ci éducation di ci sawar trop parce que man it éducateur la waaw. monsieur éducation boobu. lu si bëgg parce que. Euh, tubaab yi dañ tubaab yi dañ fi nekk. waaw je vais résumer en français si vous après. bëgg tabax doomu aadama tubaab yi bëgg tabax seen doomu aadama si seen anam. bi nu déparé sëriñ si sa maam sëñ Tuubaa ak sa maam sëñ Hajj Malick visé xol yi. kii bind Zajrul Quluub kii bind jasbul xulub pourquoi ñoom ñu tëb rek jublu si xol yi parce que xam nañu su fekkee ni am nga xol bi am nga lu nekk foofu rek la ñu rawee ñu nekk nag kon moom ñii ñu nekk si dynamique boobu mooy ko benn yoon kon ñu ngi ñaan yàlla rek yàlla jël réew mi tekk si ay loxo